thank you ajaratu Daba Boye nekkoon ku ñu ràññee bu baax ci liggéeyam wàllum seet li xam ne moom la doon def di gisaane waaye tamit mu àndaloon ci di bégal bu baax jaam yi rawatina ca rajo ba ak ca télé ba ca seen TV sax la mujjee woon di fa def liggéey bu am solo moom moomee ajaratu Daba Boye nag moo wuy ji boromam tey ci dibeer bi mu nekk nag loo xam ne lu métti métti la dal ci kaw Sénégal moom moomee ajaratu Daba Boye dem na ca këram gu mujj ñu koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana firdawsi dee doon noflaayam par ma voix équipe Dakar Live TV mu ngi koy jaale njaboot bi yëpp di ko jaale Sénégal Ajaratu Daba Boy bu a ah, dem na wuy ji a ah, tey ci dibeer bi mu nekk nag lu méttee métti dal ci kaw askan sunu gaal. way seetkat bu am maanaa. way seetkat bu bëgg boppam. seetkat bu fonk boppam. a am harmonie. ndax sa xeetu sa su reetaan musuma dégg seetkat bu ko reetaan. waaw dëgg neexul. <laughs> ah kon gis nga ni mu ca ma tëggandi ma fay ajartu soona ba jaana ma dooleel. hey laa ilaaha illallah tey damaa yëg doom jee. lu yëngu la ko yëngal kopp xaar na ma ñëw. yaa soxla ki soxla ponkal la réew mee ko yow mi yor say gàllaajtee ko da ngaa yi ñaan bu leen laal laalaat bëgguma di late bëgguma di wax lu ma xamul mm-hmm. bëgguma di wax lu ma gisul bëgguma di wax lu ma fekkeewul ndax euh, damay doomu lebu ci ndey di doomu lebu ci baay ñaar tamit euh, neexuma deret ñett duma waxantu moo waral duma génnantu ñu bari danu may bëgg di interview lu xew mbaa am waaye duma waxantu lii mag ma jóg di ci wax nii dama cee xam lu leer nañ nañ nañ yoo xam ne mm. ah faaw ndax réew bu tolloo ci euh, melokaan bu mel nii mm-hmm. faaw nga jóg boo fekkee as jullit nga mhm. wala danga am xam-xam gu ndaw mhm. mbaa bu tuuti ndax nag àdduna ñaar la mhm. ñun li yàlla def ci ñun sunu borom rekk ko def ci ñun te yàlla nee naa la bu bindee yow nga bëgg effacé bu yàggee yow lay effacé ba pare bind te kenn dootu ci mën dara sunu borom mooy xool ki ko neex mu xool la ko neex def ko ca moom te kenn du ca mën dara balaa bii wàcc ci réew mi yàlla nee la ki koy gunge ponkal la du nit ba ma ko ko fekk ci gaar bi yëgoo mu ne ci gaar gi laa ko fekk mu ngi sàngoo sër keroog la ma xamal lu ma xamul woon ci jamono bu yàqu bi yii ma ni yii wax amul dara xew maa ko wax ay ca namuma dara kenn du ko wax dañ la la koy waxal namu ma dara ko wax laa ma dara kenn du ko wax laa laa def fas yéene dem Sénégal ma ay food ma ay caaxaan maa ngi daal nga ko daa joxatu dama booy du may foo may caaxaan ku ma ci maaseel yaa may bàyyi xel wax amul dara xewut wax amul dara xewut wax amul dara xewul baa ngi nii gàmbaarke ma ñëw dunu man yàlla maa ko wax ay ca namuma dara kenn du ko wax dañ la koy waxal nii laa def nii laa la namuma dara kenn du ko wax dañ la koy waxal namuma dara kenn du ko wax dañ la nii laa def fas yéene dem Sénégal ma ay foo du ma ay caaxaan maa ngi nii daal nga ko tuux daa joxatu dama booy du ma ay foo du ma ay caaxaan ku ma ci maaseel yaa may bàyyi xel wax amul dara xewut wax amul dara xewut wax amul dara xewul ajaa baa ngi ma ñoom du nu man du may fo du may caaxaan du may kala kala le retour de Dakar xale yi maa ngi nii maa ngi nii wax amul dara xew man la ajatu la ko boppam ñetti naa sa tur njëkk rek lañ daal taalibe Serigne Fallou ak Serigne Babacar du may fo maa koy yëngal tiktokoor da ngeen a ñëwee ragaloo leen tey ngeen gis man ma bi. ñëpp a taxaw ah, may sama ñëw euh, j'arrive avec toi attends je parle avec les gens après je parle avec toi attends j'arrive quand je parle les Sénégalais il faut écouter oui quand tu parles il faut écouter quand moi je parle il faut écouter non je parle très bien waaye attends Betty je parle les Sénégalais qui est ici et les Sénégalais qui est euh, euh, en Europe Oui. Il y a beaucoup de Sénégalais, Sénégalais qui est en a une Sénégalais qui est en <laughs> Sénégal partout dans le monde. Oui. dem leen dem leen ngeen jël masque yi. waaw ut ay zel bu leen ko ñàkk fayda. am leen ci seen fulla ku leen di nuyu te laalu zel bu leen ko nuyu. ku takkul masque bu leen wax ak moom. sorante leen bu leen laalante. Mm-hmm. en même temps dem leen ngeen ñàkku ji. feebar bi <laughs> day rey. te rusu ci kenn. amul xàjj mm-hmm. ah, ma ne naa ko jëndee ciment ak suuf damaa tënk te kenn dimbaliwul. ak ah, a nekk sax. waaw loolu la ma keneen ki ne ma damaa bëgg soixante quinze mille dama am problème fay ko nga dem génne ko génn génne kii bi mu ne ma damaa bëgg soixante quinze mille te kooku ñu génn cinq ans ay mbokk yore ma premier cadeau jóge fu ne. ba barki démb rek man bi ma tëddee ay mbokkam yoroon nañ ma premier cadeau ñëw di ma takk see ay ñeenti nit ñëw nañ di ma takk benn ci ma xujaak biram ngoor jëm jaale mi ci jaaj ji ma sàmb nee na faal euh, Louis Mbaye mii suul doomam barki démb kër yo mbay gay fay waaw ki ma génnal cinq an rakam la Omar Mbaye seen baay hmm. Louis Amérique la ma woowee ne ma ñoo la yar mi naa la la seet feeñoo dañu lay takk diriyanke bay na ci gestu dama mën naa la mayaat million ñoo la bëggee ma ne ko sëy sunu borom moo koy dogal. dëgg dama bëgg kilifa. nitu yàlla bu ma yar ndax sama fit daa bëri lool góor yàlla yi ñemewuñu. dëgg du ndaw dëgg amul moroom bu jugee ci xolu boromam bés bi la ku nekk di ñaan donte du lu neex donte du lu neex nga bàyyi ndeg bàyyi bàyyi mbokk yee bàyyi xarit yee dem keneen. tey bu ma xëyoon. Mhm. dajee ku góor damay duggaat <laughs> ñaat dërëm du ma ko am. suy est ba ci butt bi dama naan ko sëñ bi baal ma nga avancé jigéen laay xaar.